daleen ak jàmm ci LVB TV ñu wax ci li jëm ci huitième de finale Ligue des Champions. tirage au sort nag bi nga xam ne moo aajowoo ci euh, lii di nag euh, Ligue des Champions nga xam ne ah, jamono bi daanaka équipe yu bëri ah, ñu ngi doon ah, séntu li nga xam ne moom moo di ay daje choc yu mag yoo xam ne dina am ci lii di huitième de finale Ligue des champions gannaaw altine bi nag ci bi midi jotee la ko def ci fi nga xam ne moom moo di Nyon nekk ci Suisse ñi ni nag daanaka owel dina jouer ak ki nga xam ne moom moo di Juventus Turin kii di Paris Saint-Germain moom ci wàllu waa France moom dina jouer ak ñi di Borussia Dortmund jàpp leen ne ci loolee sax doon doñ nag ay équipe yu bëri yoo xam xam ah, ci ah, ndox té li ah, doon nañu jongante way gënaaw bi nga xamné nak jaar nañ ci phase de poule yi li nga xamné mo ci aji woon nak équipe yu bari dañoo mujjee wàññeeku légui mu dess nak lu tollok fukk ak juroom benn ci équipe yo xamné ñom ñoo wara xëccio 16 bu mag bi wala bon jël coupe bobu nga xamné mom lañuy wowe la coupe aux grandes oreilles li nak di ay tour yu mag yo xam ne nemmeeku la lu ci melni Real de Madrid FC Barcelone di Juventus Bayern Munich Liverpool mi nga xam sax daaw rek moom moo jëloon lii di raw gàddu gi naka noonu itam ay Atalanta Bergame ñoom nga xam ne doon nañu ay adversaire équipe yoo xam ne sax bu dee ràññew ñu leen euh, nara xëccoo li nga xam ne nag moom la ñu moo di équipe yooyu nag gis nañu gannaaw bi nga xam ne def nañu euh, tirage au sort boobee dafa nax ñu bëri ñi nga xam ne dañoo jàppoon ne euh, daal yenn choc yi dina am ku ci mel ni équipe bu Paris Saint-Germain dem daje ak lenn ca équipe bu anglais lu ñu mel amul ndaxte nag itam. tirage au sort ku ne xam na ne nak euh, dal bul la buy euh, tourné euh, ci loolu nak téréwul dina am ay dajé yu mag yo xamne dess des na ko nemmeeku lim ni la tëddee mu di Borussia Dortmund ak ñoy dajé ak wa Paris Saint-Germain Real de Madrid wala dajé ak Manchester City Atalanta Bergam di dajé ak Valence FC ñi di wa Atlético Madrid di dajé ak Liverpool bu ñom Sadio Mané Chelsea war dajé ak ñi di Bayern de Munich Olympique Olympique euh, de Lyon war daje ak euh, Juventus euh, Turin Tottenham équipe bu anglais di daje ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di Leipzig sa Allemagne Naples war daje ak Barcelone daanaka tirage boobu sor boobi nag bi midi ak ñaar fukki simili jote daal lañu ko jeexal loolu nag jamono bi loolu nag jamono bi dina nekk nag ay ndaje yoo xam ne ñu am solo jamono yi ñu jëm di yaakaar ni rek ñii di waa Ah, dan ke ekip berbuah. Euh, Sadio Mané di Liverpool nga xam ne moo amoon euh, ndam li nëgër ni daaw dem défendre titre am wala bon day teel ak kàngam yu mel nii ñii di nga xam ne ñoom ne di Real Madrid nga xam ne teg la na ñetti at du ko jël équipe yu mag comme euh, Barcelone nga xam ne itam ñoom namm nañu ko bii wala ay Juventus ndax ñoom ñoo koy donn lu ni mel des na ci am lu leer bu jongante yooyu tàmbalee waaye jàppale ne daal tirage au sort bi lim nañu ko léegi di leen. chapeau yi nag nii la chapeau bu njëkk bi Barcelone la Bayern de Munich Juventus Leipzig Liverpool Manchester euh, City Paris Saint-Germain ak Valence chapeau de bi Atalanta la woon Atletico Chelsea Dortmund Lyon euh, Napoli Real de Madrid ak euh, Tottenham wax nañ leen léegi nga ah, daanaka équipe yi wara a jongante ñu Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Real de Madrid Manchester City Atalanta Bergame Valence FC euh, Atletico Madrid Liverpool Chelsea Bayern de Munich Olympique de Lyon di ak euh, Juventus Turin Tottenham Leipzig ñi di Naples wara daje ak euh, Barcelone jërë ngeen jëf xam ñu joxe dig daje euh, ci ndortel loolu di ay euh, huitième de finale Ligue des champions édition 2019 2020